donc comme ni ñu ko waxee euh, discours ba la boo xamante ne nii ci ñu ëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo ko déglu nee nañu discours bu bu bu baax la ndax euh, discours la boo xamante ne ni am na lu bari loo xamante ne président Bassirou Diomaye fay fàttali na ko euh, ci. déjà anam bi nga xam ne moom lañ ko falee euh, pourcentage bi nga xam ne moom la am ak charge bi nga xam ne nii moo moo moo tegu ci pourcentage boobu nga xam ne euh, mooy ay sénégalais te euh, fal ko wax na aussi tamit ci wàllum li nga xam ne mooy soulager surtout ñi nga xam ne ñooy population bi jàppale leen te aussi xam ne nekkul. pal boo xamante ne ni euh, dafay ñëw rek continuer wala def li nga xam ne nii loolu la ñu yàggoon di gis lu bëri ci euh, euh, situation bi nga xam ne moom la sénégalais yi di dund moom xam na ko. te moom aussi tamit euh, yaakaar nañ ne ak euh, gouvernement bi nga xam ne nii moom la war a teg waaye aussi tamit ak liggéey bi nga xam ne moom moo koy xaar dina ci def kéntulaay kàttanam ba mën mun a doon loo xamante ne nii tey jii ëllëgu Sénégal dina ci mën a jaaree changé ba bu fekkee def na clin d'œil ci régime bi nga xam ne moom moo fi nekkoon li ñuy mën a jàpp aussi tamit mooy béy sa weewu tànk moom bi ñu ko falee gis nañu ci ay information yoo xamante ne nii jàll na que démissionné na ci lépp loo xamante ne nii instance u partem la donc moom déjà joxe na li nga xam ne nii mooy euh, euh, départ wala sax joxe na sone na li nga xam ne mooy jëmukaay bi ba ku ci nekk war cee mën a euh, roy. liñ ci mën a jàpp bëri na mais déjà dañuy jàpp li njëkk mooy lan mooy que discours bu dal xel la bu dal xel la du moment que ne la ñu doon séentu ci li nga xam ne moom lañ ci doon yaakaar dégg nañ ko. Euh, li njëkk mooy tàmbalee na fi nga xam ne fa la jaar ba agsi ci consécration boobu nga xam ne moom lañ ko jébbal donc mu njëkk firnde charge yi nga xam ne jox nañ ko ko ne ko euh, lii mooy mbubum njiitu réew donc mu comprendre également li nga xam ne mu ngi ko ciy xaar la deuxième chose bi ñu mën a comprendre ci li nga xam ne moom mooy discours boobu nga xam ne yëkkati na rappelé na également parcours bi ñu jaar ba mu agsi foofu moom laa wax léegi mooy rek sacrifice yi nga xam ne askanu Sénégal euh, moo ay doomam daj nañu ko ngir ñoom moom ñu porté ko parce que du moom rek moom moo mën a aaki moo sa pouvoir mais dafa am ñu ko porté ñu ko gunge ba moom mu jot ci muy lan muy ñi nga xam ne dagg nañ ci seen loxo ñii ci ñàkk seen bët ñi ci ñàkk seen tànk ba ñi ci ñàkk ñi nga xam ne ñooy seen bakkan